Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. wa senegal ak doom senegal sénégal fi ngeen manti nek ci adina bi ma ngi len di nuyu ma ngi len di ziarah di len balax di diko sakku ci kenn ku ne waxtu wi ñu nek pratiquement li dese minuit jot wut tay ñu ngi si alxamis le 28 juillet 2022 ci dakarou ak li ko wër su décidé waxtu wi jakarlo ak yeen jox len information dafa fekk ni ka dafa am comme niko xalé di waxe cas bi fu mu amee ca Fuladu la bu ñuy wax Fuladu xel yëpp dem ci région Kolda waye ci département Vélingara ak lu jëm ci lolu parce que fàttewul len ni ñi nga xamné ne caravane yewi Askan Wi tay bërëb bobu lañ nek tax ne xel yëpp nek fofu jambarlo bu ndaw dox na tey diggante jeune yi nga xam ne ñoo wu yewi askan wi ak seen convoi bëggoon ànd ak ousmane sonko nee nañu jàmbaarloo nañu ak ay jeune yoo xam ne ñoo ci majorité présidentielle bi ñu leen wax bennoo bokk yaakaar waaye jàmbaarloo boobu lu mel noonu tamit bu fekkee ni fële ca kolda ñi nga xam ne mooy force de l'ordre surtout police teel nañu jóg pour nu saafara ko feneen fu tudd janna malaar yi nekk dans la même zone am na xew-xew yi fa am ndaxte nee nañu maire ba moom ak ay nitam dañu jaaw dañu taxaw bëgg a bloquer convoi bi parce que au même moment ñoom it am nañu taxaw euh, rencontre meeting bi nga xam ne doon nañ ko def tax na yàqu-yàqu yi bëri na fa lool même bu fekkee ni benn bakkan rotu fa te it signalé wuñu tamit ay blessés yu grave ñu sante ko yàlla waaye euh, de plus en plus ñuy jege li nga xam ne mooy échéance bi nga xam ne moo nar a am dimanche fit yëpp jug nañu ndaxte benn xel dalut euh, tax na bu nu desee encore fi nga xam ne mooy fuladu boobu foofu la kaa amee kaa bi mooy lan mooy waxtu wi may wax ak yéen kenn ku tudd El Hadj Abdul Aziz mbeng conseiller départemental nekkoon na ci ma euh, législature yële passé nekkoon na ki nga xam ne adjoint muy deuxième adjoint maireu Vellingara. tey conseil départemental la waxtu bi may wax ak yéen mu ngi en garde à vue fële ca brigade bu gendarmerie bu Vélingara li ko waral mooy dañ koy jiiñ ab siif dégg ngeen ma bu baax dañ ko jiiñ viol ak détournement de mineur ki koy jiiñ du kenn ku dul président du conseil départemental bi nga xam ne ñoom ñaar ñoo bokk seen bennoo bokk yaakaar ki koy

Euh, jéem nañu xool naka ñoom lañ ko mën a régler ci suuf mais dafa mel ni animosité bi nga xam ne moo dox diggante ki nga xam ne mooy président conseil départemental bi ak ki nga xam ne mbokkum parti la muy euh, Abdoul Aziz Mbengue euh, noonu boobu dafa rëy ba finalement yëf yi dafa tàbbi ci loxol yoon waxtu wii may wax ak yéen teg na nu loxo ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz mbéng muy. conseiller départemental bu Vilingara te bokku ci parti Benno Bokk Yaakaar bu féké ni lu banal la bu féké ni nit ku anodin la pratiquement mun nañ ñé du am portée bi waaye ki ñuy tumal tay ki nga xamné ne mo nek en garde à vue té défé nañ ni suba inshallah da daana ko jébbal ki nga xamné moy procureur de la république waajooju luñ ko gën lu mu gëna fess ci internet bi luñ ko gëna xamé ci Facebook bi moy ay attaques ki saga ci ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko te lu mu ko yekkal saa su ne mooy le violeur mooy nit ku bon la mooy euh, saay-saay la kole ko ci accusation yi nga xam ne mooy accusation yu farfolu yoo xam ne teguñu ko fenn mooy tàppale bi nga xam ne nguur gi tàppale woon na ko ak kii di aji Sarr ci loolu lay attaqué Ousmane Sonko guddi ak bëccëg loolu moo di programme am dafa mel ni nattu yàlla yegg na ci moom waxtu wii may wax ak yéen mu ngi fanaan fële ci en garde ci grille yu brigade bu gendarmerie bu Vélingara bu fekkee ne cas boobu am na ci Vélingara yoon commencé ci am parce que ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz euh, Mbeng ñu teg ko loxo fi nga xam ne mooy brigade bu foire bi nekk ca Dakar beneen scandale beneen cas am na fa fan yëpp dëgg ngeen ki nga xam ne mooy yaayu benn xale bu jigéen bu am 17 ans mu yaayu aadama mu ngi jooy kéwlu la njëkkee ça presque une semaine bi mu ñëwee wax ak ñun. boobu léegi ñu ngi doon seet lan la gendarmerie di def ci yëf ya euh, tax na boobu léegi ñu ngi ne tekk ndaxte ci muy accusé ni moom moo siif doomam mu ngi yëg enregistrement audio ci kooku kooku kilifa la ci benn Bokk Yaakaar waaye dinaa leen jox encore tetal yu mag nekkoon na ancien DG ci structure bu mag fii ci biir Ndakaaru te it euh, bu ngeen dégloo yaayu Adama ci tetal yi mu wax waa ji euh, échange yu nu am séeréer la taxna ba da fay melni duñu pas jouer au devinette parce que ñun kéwulo ko ñu xam xam ne dañuy dem droit au but andu nañu entretien exclusif ak soxna si nga xam ne moom moo ne te dina ko jàppale dinañu taxaw ci wetam gungé ko ki nga xam ne mooy ponkalum benno bok yaakaar bi nga xam ne moom la bëgg protéger parce que apparemment brigade de gendarmerie bu foar ba ñu ngi fexé ba ndëpp ndëppal yëf yi pour mu yem fii mën nañ jël garantie nii soxna soosu ñu taxaw ci wetam comme ni ñu koy defee saa su ne lu tax nag ñu génne leen ñaari cas spécifiques yi fële nga xam ne Abdoul Aziz Mbeng moom lañ ko tuumaal fële ca Vélingara ba ñu teg ko loxo ci waxtu wii may wax yéen parce que tey ay booru 18 19 heures la ko gendarmerie jàpp placé ko en garde à vue ki nga xam ne nag mooy benn cas bi nga xam ne brigade de gendarmerie bu Foire ba moo ko yor. gannaaw xale bu jigéen bu jóge woon seen dëkk ñëw di uti liggéey la benn kilifa bi nga xam ne ancien PDS la woon tey mu nekk benn bokk yaakaar fat ko këram ne ko pour mu nekkal ko jànq nekkal ko liggéey la yaay ji ne dañoo siif doomam boobu brigade bu gendarmerie bu foire ba dafa mel ni dañu décider nii dañu ndëpp ndëppal yëf yi mais mun naa leen garanti nii yëf yi du yombe noonu mooy ñaari cas yu spécifique te ñaar yi ci kenn ku ci nekk mooy ki nga xam ne mooy Abdoul Aziz Mbengue fële ca Vélingara mooy ki nga xam ne moom la ñuy tuumaal fii ci foire bi ñaar lañ ñoo xam ne fësal nañ seen bopp surtout fan yi ñu génn ak euh, pratiquement coow lu aji Sarr bi taxaw waxtu wu ne yekkal ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko lu mel ni xeme saa su ne tuddee ko naan ko violeur violeur violeur te waxtu wi wax dëgg yàlla bu fekkee ne amuñu benn élément de preuve ci li nga xam ne mooy tuuma ak Euh, kàddu yu bon yooyu nga xam ne jëmoon nañ ko teg ki nga xam ne mooy président wu Pastef ñii nga xam ne tey ñoo nekk ci benn bokk yaakaar ñi nga xam ne tey seen gouvernement ak seeni gendarme ñoom ñoo yor yëf yi ay preuve yu accablante la famille yi nga xam ne di tuumaal ñaar ñi am fële ca Vélingara teg nañu Abdoul Aziz Mbengue loxo waxtu wi ma waxtu wi ñu nekk fi nga xam ne mooy fii ci foir ba ca dakaar dafa mel ni dañu bëgg ndëpp ndëppal yëf yi waaye yaayu Adama jóg na taxaw seeti na Kéwoulo am na nañu entretien exclusif ak moom waaye taxaw na ni dina xeex ñu woo organisation des droits des femmes ak organisation des droits de l'homme yëpp ñu ñëw dimbali ñii ba nga xam ne yoon mën a def liggéeyam ci parce que gis ngeen daaw ci tàppalewu aji Sarr génne nañu jusqu'à l'armée parce que nee nañu il faut que Ousmane Sonko mu wuy ci yoon coow la euh, ba tey teguñu ko ci suuf waaye gis ngeen Euh, ki nga xam ne nag moom la ñu utiliser mooy xuus mbaa njàpp bi di Adji Sarr pratiquement dafa mel ni wéet na ndaxte yaayam yaa ngi rocceeku benn par benn gannaaw bi seen bi ñu defaree seen biir defaraale seen poche ñu ngi rocceeku kenn kenn di dellu ginnaaw parce que kuy defendre dëgg doo dellu ginnaaw jamais kuy défendre fenn ki tàppale muy sonn ba ci kanam ne danaa bàyyi mbokk yi li laa leen bëggoon a jox ci guddi gi xamal leen ni ñaari cas de viol ay hauts responsables yu Benno Bokk Yaakaar benn bi di Abdoul Aziz Mbeng moom lañ ko tuumaal mooy conseil départemental ancien numéro 2 bu mairie bu velingara deuxième kenn ancien DG d'une grande structure bu fii ci Sénégal actuellement nekk kilifa bu bokk ci Benno Bokk Yaakaar saa su ne ñoom ñaar seen virulence lañ leen xamee di yekkal Ousmane Sonko lu ne te ñaar ñii ñëpp ay xale yu ndaw pratiquement dafa mel ni nattu xale yoo 17 ans lañ am ñaar ñii ñëpp. pratiquement ka ca Vélingara ak ki nga xam ne mooy fii ca ndakaaru ca foir bi mbokk yi ñu ngi leen di jox ndaje incha allah suba ak jàmm jërëjëf.